wa an sayyarta ahmada li nabiya dañuy sant yàlla bi ñu yàlla boole ci xeetu yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li xaajo Omar doon wax léegi rek mooy dal ñépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba boobu nga xam da doon jeex di ñiis di ngeer saa bu yonent bi jàkkaarloo moom sentir ni kii am na mi ngi suuf am na loo xam daf koy dund lu metti yonent bi laaj ko lan la mu wax wax ju réy jooju nga xam ni moom la wax defe naa ne suñu réew mi am na fi ñoo xam lu ñuy bind ba tey sëñ Mbàkke buñ ko dee liir dinañ xam ni eh, Sénégal desul gannaaw benn yoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii preuve la ci parce que lii c'est la première fois ñu taxawal ko mais biñ koy taxawal am na ñuy proposé grand théâtre am na ñu wax soraanoo mais dañ ni nañu natt suñu bopp natt yonent bi nan la mel ci ñun sallallahu alayhi wa sallam moo tax xaaj bi fi nekk sax xamuñu leen loolu nag du kenn du Muhammad du kenn mais yonent ci yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam kon nañu gën a jàpp yonent bi nañ ko gën a wóolu nañ ko gën a bëgg teg ko foo xam ni duñ fa duñ fa teg kenn ndax yonent bi nu mel ci ñun kenn melu noonu ci ñun yonent yi ku ci nekk da ngay am problème yowmal qiyam ba mu des si yonent bi sallallahu alayhi wa moom rek la wax sal tuuta laajal loo laaj dinañ la ko jox kon kooku mooy waaja koo kooku jara àndal man nag tey dafa am lu ma bëggoon su ma amoon terrain dinaa ko jox su ma amoon oto wallahi dinaa ko jox parce que man sama langage ci arab sama làmmiñ moom moo ko def defar Mouhamadul Amin billahi wallahi taalahi mere na ma ci téere lu mat ñetti weer trois mois mu mere ma ñoom Xaaji Omar ak ñoom euh, Cheikh Omar Fouti Imam Abakirin mën nañoo nekk seede ci man trois mois mu mere ma ci ndax téere yoo xam ne daf ma ko doon jëndal ustaad la mooy nadarata naam nadarata naam téere boobu la mu ne ma da koy jënd defar sa langage bul waxati dara loo maîtriser wul bul yëkkati benn aaya boo xam ne moo ko loo ko boo ko naree wax ko ci olof di ma topp nga xam ne benn xaraf du la ko ci gën sévère ci man dañuy xuloo yenn saay ba ñuy ñëw ñu jubóole kon man mënuma koo fay ak li nga xam ne moom lay def ci dënn jullit ñi saa boo ko dégloo wallahi di nga génnewaat say téere jàngi kenn mënu ci dara loolu defe naa ñëpp nangul nañ ko loolu ak respecté bi mu respecté xam respecté gi nga xam ne respecté na ko xam-xam nga xam ne loolu doomi soxna yëpp ko ko nangul boo taxawee ci kanamam loolu rawax wax ci diine di nga ko bàyyi xel kon loolu lu mu defal yoon ci bi daaw nag taxaw nañ ci raw rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu jaayante foofu mu ne ma jaayanteen ak yonent bi jigéen nga dangaa war a liggéeyal lislaam fexeel ba am jigéen ñi ndax jigéen ñi ñoo dimbali lislaam sa communication bul viser kenn visé ñëpp ndax ñëpp ñu ngi bokk ci umma Seydina Muhammad Seyda jaayanteel ak yonent bi soo jógee fii nga dem masjidu Aïcha nga jaayante ak Seydatuna Aïcha moo tax jigéen ñi ngeen gis fi ñu toog bokk ci groupe bi ñuy wax Madinatul Munawara ak soppe na bi jigéen ñi jiite leen ñoom ñëpp bi ma ñëwee ren ci lañu dugg am na ñoo xam ñi ngi muuru jàng seen diine di dund lislaam dëgg dëgg dëgg kon dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla dimbalee loolu ñu jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dimbali ñoo lii ma yor nag du dara yonent bi nit joxe na wane nit joxe na nëbb Ousmane taxaw na ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ba yonent bi ni Ousmane dootul dafa defat yàlla lu ko naqari damaa bëgg yéen sama mbokk ngeen jàppale ma ndax su ma amoon caabi oto pap pap su ma amoon caabi oto fii laa ko koy tegal parce que kooku nekk xam ne des émission yi mu fay def nu mu méttee guddi lay jóg fajar amul oto ci li muy wax ci yonent bi loolu c'est pas normal ana jullit ñi oto yi nga xam ñi ngi ko denc mais nañ ko ci jox benn taxi lay jël di liggéey moom ak ay moromam ñu bari ci sponsorisé wuñ ko mais nañ ko dimbali jox ko oto boo xam ni xëy na dina ci mën a liggéey liggéey bi yomb kon yéen sama mbokk indi leen cadeau yi ak enveloppe yi ñu ànd teral Mouhamad jërëjëf euh, Seyda mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi bul dem Seyda mbokk yi asalaamaaleykum Seyda mbokk yi asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum mbokk yi asalaamualeykum ñaata yoon laa leen nuyu ñeenti yoon mbokk yi olof nee na olof nee na sa noonu turu teraanga wuum la tudde dëgg la ndaxte amatu ci pexe lan laa bëgg a wax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñan ñoo ko tudde woon al amin bi suñu mbokk bi yëkkati sayda Pape borom renaissance mi teewal président Macky président Macky Sall jox na ma enveloppe bu doon dolli ca la mu defoon. ñu may ma tuuti mani mani kan moo tudde woon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al amin du waa Makka du ñoo ko génne woon xanaa ñii doy nañ sëkk noonu te teewul nag. Seyda mbaa ma delloo la sa rajo dem toog li nga wax a yëngal ma jóg taxaw ne bokkuma ci protocole bi nañ ma arrêté li déglu sama message deux minutes ñu dégg li may wax jàppale la ci li nga bëgg ndax dégg nañ ko ba mu tàbbi sunu xol al amin waa màkk ñoo ko ko tudde woon amatuñu pexe ndax càmbar nañ ci biir ci biti moo ci gënoon a wóor ñu ne ko al amin benn bis problème am sëñ Mbàkke xeer wa ca makka nga xam ni ku tawaaf kaaba gi ba yeggal ku tawaaf ba yeggal kaaba ga te fóonoo xeer wa jàpp ni laaloo kaaba gi demoo makka en ah, oustaz Mouhamadul Amin xeer woowee keroog bañ ko bëggee dellowaat place am coow bari giir gu ni maa koy dugal te ku ko dugal kat histoire da lay topp ba faaw ni famille sàngam ñoo dugaloon xeer wa oustaz Mbacke Serigne Hadi Niass Serigne Hadi soppee nabi ki ngay waxtaane foo toll keroog ba ñépp jaaxle dañu ni nañ ni kupp waxtaan wi nañ ni kupp jaas yi nañ tëral ngànnaay yi nañ toog ñun ñëpp wàggirlu ci yàlla ku njëkk a génne ci bunt bi lum ñu dogalal ñu jaar ci ñu jekki-jekki bu sang ba ni tëll sa turandoo al amin sayyiduna muhammad moo ni tëll ni lu xew ñu nettali ko lu xew mu ne nañ bàyyi coow li yow ak yow ak yow ak yow ay mbokk ngeen bu ngeen fi tojantey bopp ay mbokk a tojantey bopp daal ni mu rét kaalam bu tedd ga lal daal ni giir gi jàppal ci bii giir gi jàppal ci bii giir gi jàppal ci bii giir gi jàppal ci bii loxoom yu tedd yi mu yëkkati xeer wa teg ci digg kaala gi ne na ko giir yépp yokk ci biir fa mu war a dem koo koy sayiduna muhammad soxna sii nag def na li mu war a def xam nga lu mu def mooy benn koñ ba moom yëkkati na ko moom yëkkati na enveloppe atuk giiram gi mu àndal ni koñ ba yoon ci yàlla muhammad joxoon génn giir man gàddu naa ko yëkkati naa ko mbokk yi ñetti koñ yi ci des koñ bu ne pour bañ a yàggal jotaay bi ku koñ jaral ñaari junni képp ku ko jaral ñaari junni rek na mel ni ñaari junni yooyu keroog teg nga ko ci loxo ba yoon ci yàlla Muhammad jëloon teg ko ca xeer wa ngir jàppale ko diine jëm kanam ku ko jaral jugal taxaw ku mu ko jaralul toogal di ma seetaan sëñ Mbàkke boolewuma la ci de ah euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa kafa wasalaatu wasalaamu ala mustafahu al amin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ayuha aljamu alkarim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci turu kooku ngeen doon tàccu léegi te tàccu bi am lu mu junj lu bare bari muy oustaz Hady Niass la ñuy ndax oustaz Hady dafa ne arab dafay faral di wax ne ñaar yu sofaanoo du dajaloo ci kenn ci benn jamono ak ci benn béréb ak diddaani laa yajtamiaan waaye mu ngi mel ne loolu dafa xaw a perturbé wu tey ci moom moo tax ma wutu ko ci kàddu yi mooy ne dafa gis boppam ne dafa war a wax ba pare mu nekk ne itam mënut wax dafa te li ko teree wax moo ko taxa war a wax te mooy mbégte ak kontaante boo xam ne am na ko ci cër bi nga xam ne Mouhamadunil Amin Daraame cërale na ko ko muy loo xam ne nee na mosu ko def ci dundam amul benn parrainage boo xam ne jiitu na bu tey bi boo xam ne Oustaz Hady Niass defal na ko nit waaye dafa bi bii mu def ko ndax li kul euh, ida urifa euh, sababu batal al ajab mooy Mouhamadul amin Dramé ci boppam waaye itam mooy oustaz Ahmad Dame Ndiaye mi nga xam ne mook Adi Niass démb li jiitu tey tey joo xam ne dafay wéy ba ëllëg ndax li ko suuxat mooy pas-pas ak ngëm-ngëm ak yëg-yëg nee na loolu moo tax mu nangu parenage bi te sawar ci lool ba loolu te euh, téléloo ko mu mën a war a mën a taxaw ci seen kanam di wax mu mel ne bés bii di bésu al amin dafa xawa a fàttali lu mag ma waxoon muy El Hadj waxoon ne suróorun fii suróorin fii suróorin waidun doona ayaadil uyooni tey jii nag dafa nekk aminun fii aminin fii aminin waidun doona ayaadil uyooni ndax kan moo woote al amin ñan ñoo wuy si ahibaul amin amin moomu lan lay taxawee ba loolu am dafay taxawe émission bu tuddee al amin mm-hmm. moo tax Serigne Abdoulaye Lam bi mu fi taxawee sànq mu laaj question bu am importance réponse bi ñëw nekk réponse bu am importance mooy ne amin bi woote mooy aminuk daj dëpp nga xam ne boo àggee ci moom rek xanaa delluwaay dootu avancé ti mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam à travers al amin nag la wootee ci support bu ñu tuddee amin muy communication xam nga communication dafa am importance wa laqad wassalna lahum al qawla laallahum yatadakkaruun wa laqad wassalna lahum al qawla la yàlla wax wa laqad wassalna lahum al qawl bu amulee laallahum yatadakkaruuna du am bu ko defee àdduna dafay daldi tukki kon dëgëraayu bés boobu moo tax oustaz Hady ci kanamu une fort délégation boo xam ne composé wu na ak ay ñi mu am yëpp mën naa wax ne ñi mu am yëpp ñu ngi ci délégation yi ndax mënuma lim nombre bi waaye mën naa wax ne ay lu ma lu jege fukki oto yoo xam ne ànd nañu ko oustaz Hady Niass mënuñu lim seen tur waaye dañuy lim ñeen ñi rek bokk na ci Ibrahima jàlloo mu ngi ci biir délégation bi di borom xam kii di oustaz euh, Modou Niang mu ngi ci euh, délégation bi oustaz El Hadji Ndaw mu ngi ci oustaz oustaz Mouhamad Gakou mu ngi ci oustaz Birane Ndiaye ak yeneen kilifa yoo xam ne buñ leen doon lim màggalu poroxaan fii la ñuy fekkati liste bi du jeex ñi nga xam ne waroon nañu ànd ak aadi tey ngir exprimer wu seen yëg-yëg ci woote bi nga xam ne Mouhamadul Amin Dramé woote na ko ndax loolu dafa am cëslaay ci histoire senegal waaye am cëslaay ci culture l'islam bu ma waxee histoire Sénégal mooy li jim Ousmane Dramé professeur doon junj sànk ci li nga xam ne mag ñi samp nañu ko fi mu nekk garab goo xam ne sax nañu war ko suuxat war ko protéger pour mu continuer te te kër diine yëpp kër yëpp nekkoon benn ci suuxat loolu. yëg-yëg boobu la oustaz Aly bi muy ñëw di wuy si jotaay bi kon oustaz Mouhamadul Amin Dramé. jàppal ne oustaz Hady Niass yëg na sa message message yu quinze millions yi nga bàyyi yëpp nga tuddee nga tànn ci ñetti nit ñetti nit tuddee leen bés bi moom mu bokk ca message boobu moom décortiqué na ko te loolu incha allah dina dina firndewu ci seen jëflante ci lii di ñëw tey la tàmbali waaye du yem tey incha allah dina wéy mu nekk loo xam ne dafay dëgëral li nga xam ne maam ñi bàyyi wan nañ ko fi jotaay bi nekkul jotaay boo xam ne dañuy guddal waaye dinañu junj junj benn symbole boo xam ne am na ci parrainage bi muy oustaz Ali Sall parce que oustaz Ali dafa ne même bu fi oustaz Ali Sall nekkoon moom moo koy porteel kàddoom ndax euh, war a wax mu war a wax oustaz Ali Sall war a wax bu boobaa oustaz Ali Sall mooy wax te li mu wax rek moom moo ko wax naka noonu itam. soxna si nga xam ne am na ñu wax ci jotaay bi ne ndaw la waaye léeg-léeg nga gis ndaw boo xam ne mbuus lay euh, mbuusum gone bu bu def yàpp mag ndax bu dul woon loolu du am li mu am kon mbuusum gone la bu sol yàpp mag kon nag il faut ñu jox ko cëru mag ndax mag du dara lu dul nga màggee ci la nga war a màggee waaye du ay at yu ñuy compter walla bés kon oustaz Hady mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di feddale benn mbir nag waaye balaa balaa balaa muy may may wax loolu oustaz Adi di feddali damay jaar fi oustaz Jim Ousmane Dramé jaaroon ndax jotaay bi ma taxaw nii <coughs> daf ci am benn wàll boo xam ne ci man la ndax dama taxaw ci kanamu samay professeur yi nga xam ne ñoo ma jàngal orienté ma ba lu ñuy wax ak nu mu mënti mel rek ci ñoom la jóge te ñaar ñu am solo ci man nekk ci jotaay bi muy oustaz Ahmad Dame Ndiaye ak oustaz Maki Diba bale toog ñooñu li ñuy jéem a tari tey ci ñun ñooñu jàng euh, oustaz Omar itam kazalika naka noonu ñoo bokk mbuus <laughs> kon li ñuy jéem a tari tey ci tarewukaay yi muy rajo yeeg yooyu ñoom ñooñu ko sawoon kon bu ma taxawee fii tey taxawaayu ku war a yàq la bu yàqoo ñoom ñu defar euh, ginnaaw loolu oustaz Adi li muy feddali mooy ne bu sañoon tey ñi fi ñëw ñépp moo leen di indi dalal leen delloo leen jox leen yóbbal bu ñuy delloo ci seen njaboot bu sañoon lépp lu fi ruusee tey ci li ñu war a def moom moo koy taxawu def ko bu sañoon immeuble boobu nga xam ne soxna Absatu wax na ko sànq ne bu sañoon mu jox ko terrain tabaxal ko oustaz aadi itam féddale na loolu tabaxal ko ba meuble ko ba jox ko caabiya mu ne ko am oustaz Amin téyel waaye dafa am lu principe bu l'islam dégagé mooy niyatul mumini ablagu min amalihi intention wu jullit toujours dafay jiitu jëfam ak jëf ji lu mu kon ci cadre boobu rek itam la oustaz Adi di symboliser taxawaayam ci wetu kii di oustaz Mouhamadul Amin Dramé ci li nga xam ne mu ngi koy teg ci loxoom waaye boo koy teg ci loxoom daf koy tegee ci loxoom à travers maam yi fi nekkoon ak baay yi fi nekkoon ak euh, kilifa yi nga xam ne ñu ci biir réew mi di kilifa diine yi nga xam ne kenn ku ci nekk tey am na teewaay fii ndax njobootu maam Borom Touba mu ngi fi njobootu Cheikh Sidi Hadji Malick nga ngi fi njobootu Ndaraame ngi fi njobootu maam Limaamu Laay ngi fi njobootu euh, Sirofa yaa ngi fi te bu ñu leen waxee sax ëmb na ñëpp bu ma doon lim ñeneen ñi suba fii la ñuy fekk te du jeex kon ñoo ñëpp à travers ñoom la oustaz euh, Adi Niass di àggale li muy àggale ci euh, oustaz Mouhamadou Lamine drame mu nekk loo xam ne nag c'est symbolique waaye c'est historique te dafay am continuité boo xam ne dafay gën a dëgëral diggante kër yi ak diggante ñaari personnage yooyu incha allah kon oustaz Mouhamadou Lamine Dramé ci turu euh, oustaz Adi Niass rek ñu teg lii ci sa loxo euh, di lay sara di lay tatagal di lay sant bu baax a baax ndax dañuy faral di wax ne nit ki lu bari pour nga xam ko ci moom foog ngeen tukki Euh, yaakaar naa ci invitation euh, bu buur bi ci jamono yi fekk naa la ci fa ngeen dal euh, ma fekk la fa fekkee la fa nag borom foofa sax la ñu xamante fekkee la fa nga nekk koo xam ne borom xam-xam boo xam ne bu am expérience la waaye bu am am am xikma ci li nga xam ne moom lay doxalee kon loolu maa ngi koy seedeel mbooloo mépp di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla bi nekk jotaay boo xam ne dafay continuer ba faw incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi ñu ngi ziar di nuyoo en tant que certainement président du mouvement pour la renaissance sénégalaise di jàppale son excellence le président de la république Macky Sall di leen nuyu di leen indil nuyoom ak ziaram di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo bokk teew ci jotaay bi di ca jiital surafaaw yi nga xam ni ñooy dogati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu war leen a jiital ci lépp di ci teg ki nga xam ne si tey ginnaaw yàlla moo waral bis bi moo waral jotaay bi doon itam ku ko mérité Mouhamad Al Amin lii li olof yi wax du chance mérite la te yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci kanam balaa ren di déwén ñun ñëpp dinañu biir leer nañu liggéeyal yonent bi dong mooy li ko jar biir ak biti maa ngi nuyu di ziar sama jigéen sama sœur Seyda sa Fall di nuyu di ziar sama mbokk sama xarit sama doomu day oustaz Omar Seck di leen ndokkeel ci bis bi di ndokkeel ñi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi yépp di wax Seyda sa dafa mel ni dafa am xaal bu ko dikkal ndax li xew léegi daanaka kenn dañu àgg ci mënatuñ ko xam lu mu doon dafa mel ni diine ji ñi ko war a défendre te yonent bi ñor leen dafa mel ni ñor gi mu leen ñor dafa am fu mu commencé am fu mu yam te loolu war naa mën a jeex ndax ñiy dox leneen loo xam ne du yàlla du yonent bi dafa mel ni dañoo nar a ëpp doole firnde bu ndaw rek laa ciy indi ndegi ni démb waxtu wi wala wu ko gën a guddi am na xew-xew yu am foofu day ay centaine de million ñoo fa wàcc ay moyens yu bari lañ fa déployé loo xam ne lenn du ci yàlla du ci yonente bi maa ngi jéggalu ci nag ñi nga xam ne ñoo ko organisé ndax érigé wu ma en donneur de leçon mais dama foog ni bu cër waree am Moustapha mi nga xam ni moo tax ñu am xew banaan naan xew ba jariñ li am ñu mën koo joxe ay ñooñam lañ ko war a jox léegi seydaa dafa am wax ju daw yaram ju mu wax dafa wax ni oustaz Mohamed Alamine gis nga coono yi muy daj ci prêcher gis nga mi ngi ci tele bi mi ngi ci rajo yi ànd ak loolu yépp dafa mujj leer ci sunu bopp ni kii li muy def yàlla dong ak yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko tax a jóg ndax su dul woon loolu am na ci lu ne ñu ni buy déplacé wu taxi lay jël kon dafa mel ni moom dogit la ci mag ñi nga xam ne daan nañu dox di jàllantu dëkk ak dëkk di yóbbu tur yàlla ak yont yàlla muhammad kon jot na ci ñun ñëpp ñu àndandoo takku taxawu ñi nga xam ne si ñoom ñooy ñuy dimbali ci njaboot gi di ñu dimbali ñun suñu bopp ndax ñi ci ëpp suñu diine dañu koy jàngal di ñu ko xamal di ñu ko nafaral di ñu ko wan ci télé bi di ñu ko wan ci YouTube bi ndax mu gën a jàppandi ci ñun te yéen yéen a jiite loolu kon bu nit ñi di def lu baax yaakaar naa ni ci yéen ñii lañ ko war a njëkkee ndax dafa am foo leen ñu féete ñu war leen a féete fa ca des incha allahu rabbul alamin man de li nga xam ni doon na ci sama cër muy information bi àgg ci président de la république son excellence Macky Sall koo xam ni kenn du ni diine ñoru ko ndax mi ngi ciy sonn mi ngi ciy def lépp lu ma mën ci ëtt këru diine yi mais léeg daanu dajul suuf léeg-léeg information bi fu mu war a àgg du fa àgg ndax tey su waree def ci diine ji yaakaar naa ni jëmm yi toog ak ñu mel ni ñoom ci ñii la war a commencé kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen félicité ixwat al iman wal aqida nuxayikum taxiyatan min indillah wa hiya assalaamu min allahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du woon sax ñu ñëw ba fii di fi jël kàddu ndax damay wax ni maak Mouhamed Lamine Dramé du ñaar benn lañu te saal bi lu mu rëy rëy rëy ginnaaw yonent yàlla Mouhamed moom moo ñu indi ci saal bi te damay wax nit bu fekkoonte ni dañ koy luwe euh, saal bi du am sax ñetti nit waaye luwewuñu nit ñi parce que moom jëmmam la yàlla jëmbat ci biir xol yi ñu fi ñëw ñépp a ko bëgg ndax yonent yàlla muhammad yal na yàlla sàmm la aar la yàlla xam nante ni jëluma woon pour wax waaye amul ci semaine bi du ñu gisee lu mat juróom benn yoon maa moom te loolu moom moo ko may moom bi muy jàng ca daara ja Tiwaawan sama bàjjan bi bokk ak sama yaay ndey ak baay moo newoon ndeyam ca daara ja sunu kër la yaroo ca kër ga yu ñëwaatee ndakaar fii mu ne alaaqa bi ma amoon ak sa bàjjan dama koy feddali ci seen njaboot waaye yow laa ca taamu yal na ko yàlla taxaw yal ko yàlla taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax euh, yàlla xamante ni mënuma sax wax ndax bëgg gi ma ko bëgg te yàlla tax xam nga nit boo ko bëggee boo ko fekkoon mu yor biteelu sàngara di ko naan sax danga naan ko yow laa gën a bëgg ndax jëmmi yàlla moo tax bëgg naa ko lool ndax yàlla rek tax te yéen xam naa it noonu ngeen ko bëggee te yàlla tax laa taajaban min haaliki kayfa hawa bal faajaban min saalimi kayfa naja durée di dafa wax ni nit ki fi mu jaar ba arku jaru la jaru la jaru la yéem li jara yéem mooy nit ki fan la jaar ba baax man loolu laa koy laaj moom fu mu jaar ba baax waaye ba mbokkam mais bi muy wax maamam ala kulli xaal laa xarwa dangay xam ni kii war na mën a baax yal na yàlla taxawu ko di nuyu mokkam mu baax mii di oustaz Hadi Niass yéen ñépp leer na leen ni boroom xam-xam la waaye yamu ca waaye ku màndu la waa loolu loolu nañ ko tàcc laysal wirasatu maalan wa abniyatan balil ulumi al fadli al ilmi al mashhur waaye nag nuurul dirayati maxsuusun li baytikum fadla min allahi wa huwa jalla almashkur benn nitu yàlla moo ko wax Serigne Mansour mu ni mu ni mu ni donn sa baay du du donn ay kër ak i ak i alal ak i daraja donn sa baay daal mooy xaala laaw xaala rasul moom donn na baayam ci loolu waaye yamuñu ca loolu yàllaa ko jëmbat kër maam Khalifa Niass radiyallahu anhu يجتمع فيه الكبار من الكرام يشترع كأنه مهرجان الحق يندلع هنا البيان من العذام يرتسع إن الأمين أمين آمن تبع نهج الأمين حبيبنا ويرتبع تراه درعا تراه درعا إذا النفاق يتلع والحكمة زينة من قوله جمع له ولكم lahu wa lakum suyuxa diini astaliu min alqawaafi risalatan wa attabiu mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw ñu ñu jéggal ma rek kàddu googu àgg ci ñëpp rek ndax su ma tàmmee ci tàmbalee ci kilifa itam du ma leen mën a jeexal kon nañ ma nañ ma nangul kàddu googu rek asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di tàmbalee ci jéggal ci soxna yu tedd yi toogoon fële toogin bu rafet ànd ak yiw affaire bi bëgg a jaxasoo man euh, désordre désordre daf may perturbé moo tax ma ma ma xëtt protocole bi parce que gis naa ne xale yi wër nañ leen te ñemewuñ leen a tudd waaye comme mag buur la ma daal di jóg rek ne leen soxna yi may leen ma ngeen demee ne bañ defaraat affaire bi ñoom itam ñu ne ñokket dem teguñ ci baat yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla teralal lislaam rekk a tax ngeen nangu loolu ndax awma ci yéen benn autorité maa ngi yéen fi yem képp su ma jógee ñëw ngeen toog seen toogaay yu jekk yooyu ma jëli leen ci ngeen nangu ko lislaam rek a tax yal na leen lislaam fay kàddu gi ci topp mooy sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax ndax dafa mel ni man juumuma dafa mel ni juumuma Mouhamad Lamine sama doom la dama koy wax sama jarbaat ndax wolof bu amee doom jumu mu jurul juñ ko jural jarbaat la koy wax te jarbaat dafa foor jarbaat a gën a foor doom lu jiitu lislaam moo tax suñu maam yi sax ba ñu duggagul ci déen ji seen jarbaat moo leen di doon seen doom du leen doon ma koy wooyee sama jarbaat ba ñépp di ko ko di ko ko wooyee baat boobu dafa am lu mu tekki ci man damaa dem 2STV di fa def émission gannaaw bi ma jógee RTS yàlla rek moo dogal ma dem fa amul protocole ah, dañ jékki-jékki rek woo ma ne ma est-ce que doo ñëw tàmbali ñu fi benn émission ma nangu parce que booba bëggoon naa li ma xam a kës néew fu ma koy bokkeek jullit ñi te jumtukaay boobu jumtukaayu tele benn gënu ko ci efficace ma tàmbali émission bi lu jiitu may tàmbali émission bi Lamine Dramé daana dem 2S parce que booba xaritam bii di Aliou Ndiaye yore émission bu mag bu ñuy tuddee grand rendez-vous léeg-léeg ko ci daan woo waaye ma tàmbali émission bi ab diir ma woo ko ma ne ko lamin mu naa ah. ma ne ko mag ku dee mu dee moom da ku dee dana dee ku deewul moom day dee te ndono mii ma yor wóoluwuma ci ñëpp ndax dëkk bi li fi sérieux bareetut moo tax damaa bëgg nga ñëw ñu dend ba man bu mu fi nekkatul nga nekk fi loolu moo dugg la moo dugal Lamine Dara di Sen TV ma commencé émission bi ak moom muy xoromal rek léeg-léeg mu fuur fuur ma ne ko eh dalal mu dal ñu dem ba weeru koor yu ñëw mu ne ma oustaz ma ne ko ah mu ne ma comme dafay am yeneen émission yu ñuy def ci koor gi di ko yaatal damaa bëggoon nga ñaanal ma ñu may ma ma def beneen benn émission ci koor gi tudde ko al amin ma ne ko amul problème ma dem so seeti soxna si wax ko ko soxna si gëmewu ko ne ko dina dama dinaa ko wax El Hadj mu wax ko El Hadj Ndiaye El nangu oustaz Lamine commencé émission bi al amin balaa koor gee jeex El Hadj nangu ko ci man nekko émission bii du émission bu ñu def ci koor ko bay da koy continuer d'ailleurs sax damay créer beneen chaîne tudd chaîne tudde ko Al Amine Alaaji Njaay ku baax la Alaaji Njaay ku jar jàppale la en tout cas man li ma xam ci moom mooy ñun may nañu jàmm ci émission yi ñuy def musu ñëw woon laaj ñun lu tax ngeen wax nangam xamul sax lu ñuy wax te boroom fulla la nag ndax njaayeen la xam ñoom waaye daf ñoo doyloo moo tax léeg kenn woo ma ne ma oustaz émission bi am na solo lool waaye heure bi moo baaxu ma ne ko heure bii ngeen yelloo ndax yéen li ngeen fas yéene mooy seen dërëm du dem ci diine ji koo xam ne dërëm bu mu am ëppale na ko lislaam bi kooku émission bu mu am fu mu nekk baax da bu ñu kenn yàpp ñoom borom télé yi yar bi ñu yar yar ci diine donc ñu nekk ay sénégalais nekk jullit moo tax ñuy def émission diine waaye émission diine rapporté wu leen tous parce que jullit yi duñ def seen xaalis ci diine ji loolu moo ma booleeg Lamine Dramé man dekk jumuma ñu dem tuuti rek nit ñëpp wax ma ne li nga def baax na ki nga jël baax na kon acca fii baax na mais il faut faire très attention il faut faire très attention nit ñi amuñ luñ joxe amuñ luñ maye yàlla moo am lu muy joxe moo am lu muy maye faut pas presser faut pas presser oto kër lu jot yàlla def ko oto bi jotagul bu jotoon rek nga am lan mooy oto lan mooy oto lan mooy kër daa jotul rek billaahi buy jot doo ci neexal kenn da koy dawal comme tout le il faut faire très attention il faut pas presser jërëjëf Dramé salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñëpp ñu ànd toog déglu oustaz Mouhamed Lamine Dramé moom la jox kàddu gi gannaaw bi ñu ndokkeelee imaam Ahmad Dam maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Euh, di sant yàlla bu baax message bi ñu bëggoon jàllale ci bés bi jàll na orientation yi nga xam ne am na ci bés bi jàll na euh, professeur Hamidou Daat sa teewaay rafetlu nañ ko lool professeur Hamidou Daat moom mi nga xam ne daanaka ñiy def doctorat ci dëkku Afrique yi ci mathématique yëpp moo koy signé mu nga ne ci biir mbooloo mi toog di kilifa gu mag ñu ngi koy nuyu bu baax a baax xam naa ñi doon lim tur yi dañu fàtte lim turam mais ñu ngi koy dalal bu baax euh, ñeneen ñi ñëpp nim lim nañ leen keneen ku ñu limul rek nga xam ne ni bis bi demee la mais yëg nañ sa taxawaay yal leen yàlla fay euh, yonti yàlla muhammad li ko yàlla jagleel dafa bari waaye benn jagle laa bëgg junj ku nekk ci yéen xool lan la ci mën a participer mooy moom dong mooy ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci mbooleem mbindeef yi keneen ku dul moom loolu nag bépp jullit dafa am rôle boo ci war a jouer ne lan laay jàppale yonent bi ci liggéeyam ci jagle boobu yàlla jox ko kon point boobu moom laa bëgg ñun ñëpp ñu xam ne am nañ ci sas mooy leeru yonent bi lii di lislaamu yonent bi lii di yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa dafa war a daj àddina bi te kenn du ko fa dajale lu dul ñun jullit yi nii boobu mooy beneen jagleel bi beneen bi nga xam ne yàlla jagleel na ko ko moom dong moo ko am te yonent yi doon ñëw yëpp dañ ko doon annoncé mooy moom la yàlla tànn def ko muy xaatamul anbiyaa wal mursalin gannaaw yonentu yàlla muhammad yonent dootul am moo mottali yonent yépp yonent du nekk indo du nekk perse du nekk nit ku ñuul du nekk naar yonent jeex na loolu ci jagleel yi yàlla jagleel yonentu yàlla muhammad ci la bokk ay at ci gannaaw am na jenn jigéen ju daan woote yonent fii ci Gibraltar yàlla def man ma dem toog ak moom bi ñu waxtaanee ba waxtaan wa xóot laa xam ne dafa am problème mu bopp wallahi alazim yal na ko yàlla yërëm parce que ku ku ku dof yàlla day du la bindal bàkkaar astafirullah ku am problème mu bopp yal na ko yàlla jéggal mais yonent dootul nekk dootul am du bu góor du bu jigéen borom risa borom misbaahu saalik dafa wax ne wala nabiyun qattu unsa yujtaba aw abdun aw zu ahatin qablu naba yonent même bu doon am sax du nekk jigéen léegi nag woote ko dafa xew partout ci àddina bi boo demee Pakistan Qadiyaniya Ahmadiya ku nekk ngay woote yonent waaye daal li yàlla wax ci alquranul karim maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allahi wa xaatama annabiyin loolu ci jagleel yi ko yàlla jagleel la bokk beneen jagleel bi nga xam ne yàlla jagleel na ko mooy al mujizatul mooy miracle bi nga xam ne c'est éternel ba ba àddina di tukki beneen miracle dootul mel ni alquranul karim dara mënu ko soppi yàllaa koy aar kenn mënu ci yokk kenn mënu koo wàññi yàlla di ko yëkkati nag jamono ji ci àddina bi partout boo demee ci internet bi dinga gis sax ay dof yu mokkal alxuraan ma ne xatta almajanin yaxfazuuna kitaab allah koo xam ne dafa dof day tari baqara ba naas yi du ci def du ci yàq virgil loolu mooy yàlla moo ko denc fu nekk téere boobu nag yàlla moo ñu ko sagalee moo ñu ko moo ñu ko baaxee tey li ñuy participer ci jagleel googu yàlla jagleel yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nañu fonk téere bi liggéeyal ko gën ko yëkkati ñun Sénégal yàlla jox nañu ci ndam at yu at yu mujj yi fu ñu demee concur ci àddina bi rek ci alxuraan ñu indi coupe bi ñi leen taxawu daare yi nga xam ne ñoo ŋànk loolu sunu baay Moustapha Lo jiite ko ànd ak Euh, fédération daara alxuraan yépp ak borom alal yi nga xam ne ñu ngi jàppale daara yi di organiser concours yi ñoom Cheikh Abdoulahi Dia ñoom Serigne As Ndaw nga xam ne ñoom ñëpp kokki lañ génne ñoom Serigne Mbuub ñooñu yan leen yàlla dooleel ñu gën a xam li leen yàlla jox noonu la ñuy liggéeyee la alxuraan lépp lu ñu lépp lu nu bëgg rek am nañu ko mais organiser wu ba lu nekk ñu teg ko place am rek moo fi des te téere boobu beneen téere dootul mel ni moom mooy téere bi nga xam ne moo ëpp lu ko mokkal ci àddina bi te ku ko bëgg a xeex yàlla jëlee la fi yëkkati ko wallahi alazim tey réew mi ëpp lu nit yu mokkal alxuraan ci àddina bi mooy turki 1924 ku fa ubbi woon daara dañ lay tëj fukki ati kaso wala ñu pendre la tey président de la république ba jiite réew ma Rajab Tayyip Erdogan dafa mokkal alxuraanul karim kon loolu mujizatul xaalida la li yàlla jagleel yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yii mbiri àddina la te dañ ko war a tas bi nga xam ne nag moom la ñuy yaakaar ñun ñëpp kër ak bés penc mooy ashafaatul kubra yal nañu ko yàlla may cheikh seydil haj malik ñu ngi yenu ay immeuble bàkkaar ku nekk jàq kenn xamatul foo jëm mu yëkkati kàddu ga ne ko yàlla li ma lay laaj tey mooy ummati ummati ummati yàlla sama xeet wi sama xeet wi sama xeet wi kooku mooy yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax maam sidi haj malik nee na laa tahrimanna ilahi yowma ruyatahu yàlla bu ñu xañ mukk keroog bés penc ñu ñàkk a gis yonent bi parce que ku ko gisul perte fa laa yaxiibanna man yarjuuka yallaahu yàlla ku la yaakaar doo tas yaakaaram alshafaatul kubra ki ci ëpp cër nag ëllëg yowmal qiyaamati mooy ki ëpp yërmande ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeneen dinañ ràmm ci ndigalu yonent bi ak ndigalu suñu borom mooy ñi yenn woon message yonent bi di tasaare yërmande nañu nekk ay jullit yu am yërmande jàppale yonent bi ci xeetam fexe kar leen ba duñu dem safara yal nañu ko yàlla yombal li ma bëggoon wax yépp xaju fi maa ngi jéggalu yontu yàlla muhammad di jéggalu suñu borom parce que wax jotaay yu mel ni yonent bi rek la ñu war a wax defe naa ku ñu fi tuddul sax da ngay bég waaw waaye nag li nu waroon wax ci moom tuuti bëri na waaye lii lañu am ci waxtu sama doomu bàjjen soxna aji siise mooy doomu bàjjen ne ne Dramé sama rakk sama mag a ngi nii Dramé ak sama mag bi nga xam ne moo ma jàngal alxuraan sëñ Moodu soxna aji joxe léegi eh, yóbbanteem nee na déwén incha moom soraanoo fay na ko ba pare waaw nee na moom lu aju ci soraanoo lépp fay na ko ba pare yàlla na ko yàlla fay kon ñun ñëpp ñu joxante loxo jàppante liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg sunu borom ñaan yàlla mu nangul ñu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi sallam di leen jox euh, rendez-vous incha allah nag ci koor gi ñu dëgmal fas yéene ngeen jàpp émission yi bu baax parce que dañu fas yéene tàmbaliwaat dundu saxaaba yi koor gi yëpp ñi àndoon ak yontu yàlla Muhammad nan la ñu mel loolu lañ fas yéene nekk programme koor gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw Sam Couture tamit Sam ñu toog ñun ñaan ñu toog ñu ñaan amu leen ndigal jóg waaw ñu waaw Sam Couture ñi nga xam ne ñooy ñi ma solal yére bu rafet bi teew nañu ak seen enveloppe yu bari yooyu macha allah kon euh, ñu jox kàddu gi alaaj Mbàkke mu continuer programme bi. ñu jublu ci li ñu bëgg a wax rek incha allah mën a Cheikh Oumar euh, li Seyda Hafsa hafizahullah wax. moom mooy dëgg li mu wax ci Dramé loolu mooy dëgg te loolu ñun ay seede lañ ci te tudd nañu ci macha allah euh, al amin nag euh, li may wax ci moom lu gàtt rekk la mooy ay jeunes yi nga xam ne formé na leen tey ñi nekk ci réew mi nekk partout dans le monde di liggéey lislaam te ñun ñii ci la ñu bokk tey ñun bu ñu demee ba nekk ci terrain daawa di woote ci lislaam di dem ci média fu nekk gannaaw yàlla moom la depuis 2001 la ànd ak ñun te bàyyiwuñu benn yoon nekk ak ñun formé ñu ci côté bu nekk nag daan génn këram ñëw fekkuñu di fanaan ak ñun di ñu jàngal dañu ñu orienté di xamal lan mooy daawa ba pare yamul foofu di fanaan ak ñun di naafila di julli di ñaan borom bi subhaanahu wa euh, kon moo tax su ñuy wut yiwu tey ñii naan tey nit dafay investir si loo xam daf koy jëriñ addinam wala allaaxiram ci li mel ni lañu mën a investir pour mu jëriñ ñu àddina ak àllaaxira ndax tey fu ñu taxaw wax ci lislaam la lépp lu ñuy def ci lislaam yàlla dina ko si bindal yiw kon moo tax foofu laay tëjee sama kàddu waaye nag di sant imaam daam Ndiaye bi nga xam ne lépp lu ne ci daraame moom itam moom moo ko def ci moom waaye dama juum daam Diop la kon maa ngi jox ki nga xam ne moom moom Cheikh euh, Oumar Foutiyou Ciss mu am benn euh, xasida boo xam ne daf koo bind ci al amin mu jàll ko salaamaaleykum wa rahmatulah. d'accord d'accord incha allah uh-huh. lastu ana man yatakallam fa shi'ru man yatakallamu anhu idan ajiju shi'ri fi madhi al-amin in ajja shi'ri fa kullu al-qawmi yastami'u in saara aydan kada ad-dahru yattabi'u يسجل أحواله ويقتنع يلازمه كطالب وينتفع وكان ذاك قرونا قد بلا يقع في ذكرها خبر للناس يرتفع زماننا قد شاد الجهل يبتدع وساد أيضا على قوم ويصطنع تراهم في فياف الحزن وانخدعوا يرجون مغيث قوم صاحيا دفعوا يعانقون حطوف الموت قد فزعوا مسخ ومسح أيا جهلا ويفتجع فالرعد من سحب للعلم يرتفع رايات أمن مع الأمان ترتفع أنا الأمين نسيم العلم أندفع أنا الأمين جسيم الجهل أبتلع